ci géej la Bamba tiggee dambi xam-xam ba faf pour ali way xalima boroomam ba ak ci yàlla ak ci ngeen ji yoon nen ñu soppi ko soppi lépp muy boroomam أعوذ بالله من ميلي لغير رضا ومن صدودي عما سن أو فرض bismillahi alladi alquranu qad nazala minhu btidaa'i wa arju indahu nuzula alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawi nawawi wali radiallahu an cheikhina wa wasilatina ahmadin muhammadin habibillah xadiimi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi amaat mbégte mu gën a dolliku feddaliku ci waxtu wi nga xamante ne ak ci ayu bis yi nga xamante ne ci lañu nekk muy weeru safar ñuy nekk ci waajtaay woo xamante ne eh, ñépp bokk nañ ko xamandoo jëm ca bis bu mag ba nga xamante ne mooy ndigalul sëñ Tuubaa lu mag loolu di fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar mu santaane woon ci ak cant yàlla ak delloo ko njukkal ci biir waajtaay yooyu nag buñ ko gënee jege te mooy li ko tàmbalee ci juróom-ñeenti fan ci weeru sofar ba egg ca fukk ya ak ñeent jataay yi nga xamante ne waa daairatu muqaddamatul xidma bi féetewoo saytu jumaa ju mag ji fi Tuuba baaxoo nañ ci ànd ak ci ay jotaay yoo xamante ne day fees dell ak yóbbal ngir ñu mën a gën a dàggi pas yi gën a yeesalaat itam pësteef yi jëm ca bis bu mag boobu jotaay yooyu ni ngeen ko baaxoo xamee danañ ko tànnal ay tomb yoo xam ne jamono yit teewoon na ko lool waaye itam tànnal ko ay jëmm yu méngoo ak tomb yooya loola di yokkaat solo lool tomb yooyu nga xam ne tànnal nañ leen ko bu weesoo ci barab bi ñu koy waxtaanee nga xam ne mooy jumaa ju mag ji muy ji wax ji di gongi ko euh, loolu day ñëw di yokku ca solo si nga xamante ne eh, jataay yi am na ko ren ji incha allahu taala itam noonu lañ koy fas yéene defee li ko tàmbalee tey jii di juróom-ñeenti fan ci weeru safar ba ñuy àgg ca fukki fan yaa ak ñi ak ñeent incha allahu taala danañ amal bis bu nekk ab jotaay bu waxtu wii tembe jotee wala lu ko jiitu aslëf di juróom-ñeenti waxtu yu tegal fanweeri simili ngeen di ko mën a topp ci seen euh, seen bii di MKTV muy ab chaine de télévision boo xamante ne daayiratu muxaddamatul xidma di kuréel googuma tuddoon léegi ñoo koy saytu taxawal ko itam ngir mu nekk ab ballulukaay boo xamante ne képp ku bëgg a topp liy gonge ko fii ci jumaa ji Eh, boo fa eh, abonné mën nga ko topp waaye itam boo koy jàpp di ko seetaan ci fi nga xam ne fi la nekk yëpp ci réseau yi di nga ko di nga di nga mën a topp jotaay yooyu nga xam ne ñu ngi koy amal waaye lépp lu xewee ci jumaa ji nga mën koo topp foofu eh, day mel ne waxtu mi ngi guddi te suñu gan gi ñu war a dalal tey mu ñëwal ñu ci tomb bu njëkk bi di ubbi jotaay bu mel ne mooy euh, ubbi waxtaan yi euh, loolu itam jeneen solo la ju dolliku ci solo yi ma waxoon léegi euh, te muy koo xamante ne bu ko présenté ñëpp danañ xam ne yàlla na lool ñu jox ko tomb bi waaye itam cërale ko mu ubbi mboolem waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy def te di ko amal ci jumaa ji ngir waajale ko bis bu màgg boobu di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar balaa ma koy jox mu nuyoo ak ñëw ci tom bi ñu war a waxtaanee damay fàttali rek eh, ñi nga xam ne ñoo nam ma topp waxtaan yooyu waxtaan yi nga xam ne danañ leen ko amal mooy tomb yi ñu leen tànnal te képp ku dem ci kanaal eh, yi nga xam ne eh, MK TV mi ngi koy saytu wala daayira bi mi ngi koy saytu rek dana fa fekk. Euh, calendrier bi nga xam ne ci lañ tënk mboolem tomb yi bu fa duggee dana ko mën a télécharger man koo am di xam bis bu nekk lañ war a waxtaanee ak ka ko war a waxtaanee ba mën koo topp ak waxtu waa na muy demee yëpp incha allah waaye jaar jaar gaaw rek ngir ñi nga xam ne jotuñu ko am ci yooyu man koo xamee ni nga xamante ne noonu la tëddee. tey jii di juróom-ñeenti fan ci weeru safar. ñi ngi war a waxtaanee alxidmatu wa majaalaatuha mooy xidma ak lépp lu ca aju ak mboolem wàll ya nga xam ne eh, manis na ko fa jàngate wala danañ ko fa mën a eh, tibbee suba di fukki fan ci weeru safar danañ waxtaanee xasiid ak wala xadd karram naa bani aadama te sëriñ bi bind ko danañ ko jàngat indi ci itam ay eh, teqantal eh, jéem cee génne ay sew-sew incha allahu taala loolu danañ ci ànd ak sëriñ Ahmadou Samb mi nga xamante ne yéen ñëpp bokk ngeen ko xam ne moo jiite daara Cheikh Mourtala ji nekk fii ci Ndaam eh, bu fukki fan ak benn ci weeru safar jotee itam danañ amaat beneen jotaay bu amati solo moom itam muy ubbee yi Sëriñ doon ubbee mooy leeral yi mu doon leeral ci wàllu diine ak ci wàllu yi nga xamante ne ñi ñi ko topp ñëpp loolu lañ loolu lañ doon sa sàkku ci moom ubbee yim ci doon ubbee eh, ci wàllu yar ci wàllu jikko ak ci wàllu yóbbu nit ak woman nit ñi ci yoonu yàlla eh, xeeti ubbe yooyu danañ ci indi aslëf gaaral ko waaye itam jàngat ko incha allahu taala loolu danañ ci ànd ak al ustaaz sëriñ Abdul Qadir Bousso alxaaji Cheikh bu fukki fan ak ñaar jote itam danañu amaat beneen jotaay boo xamante ne danañ waxtaane nekkuk sëriñ bi ci njaareem jeexital yi nga xamante ne am na ci ak lan la e, lan la bàyyi ci woote bi Sëriñ Tuubaa doon woote ci yeesal waaye gën a baaxal yi nga xamante ne lu baax la fi woon waaye sopp yi nga xamante ne itam yu ñu wartoon a def la loola danañ ci ànd ak Serigne Aïssa Gueye mu ko ñu xam ci wàllu gëstu rawatina lu jëm ci fànn gi euh, bis bi nga xam nag moom la ñuy euh, tuddee bis bi gën a mag ci waxtaan yooyu nga xam ne dañ koy ànd ak waa comité d'organisation bi Eh, Cheikh Amadou Bachir mu Cheikh Abdoul yor kàddu sëriñ bi jiite ko danañ ànd ak ñoom itam ab jotaay boo xam ne ñoom naka jekk dañ koo baaxoo ànd ak ñoom loolu nag du lu waxtaan wu ñuy seppee ci biir waxtaan yi waaye dañuy jël benn waxtaan ca yooya gën koo yaatal ànd ko ak ñoom eh, bu ko defee eh, waxtaan woowa mooy nekk fukkeelu fan ak ñett ci weeru safar ñu war caa waxtaanee solo si nga xam ne xasiida am na ko eh, wala jàng xasiida am na ko ci dunduk murit bi eh, loola danañ ci ànd ak eh, sëriñ Ahmadou Mbacké moom sëñ Mourtala moom Cheikh Faty Fall bu Daarul Muxti tom boobu xam ngeen ne jox ko kooku lu yàllu lu jaadu la bis bi ñu koy mujje te mooy bis bi ñu tëj waxtaan yi Eh, muy fukki fan ak ñeent ci weeru safar la koy waral nag itam mooy eh, bis boobu day fekk màggal gi sës ba nga xam ne jumaa ji ak ñi koy saytu danañ nekk ci di saytu yeneen mooy tax ñu koy tëj ci fukki fan ak ak ñeent ndax lu ca topp rek day sës si màggal gi ba gan ñeeg ñi ziar ak yooyu doon tax dootu mën a tee defati jotaay yu mel noonu waaye du tey itam ci site bi ak ci chaîne de télévision bi yëpp dina am ay jotaay yoo xamante ay jotaay animation lay nekk ak jotaay yoo xam ne dañ jël yeneen tomb di ko waxtaane fekki fan ak ñeent ci weeru safar dañ cee baaxoo ànd ak yéen muy bis bi tëj waxtaan yi ñuy waajalee màggal gi dañ cee baaxoo ànd ak Serigne Fadilou Bousso Tamba at mu jot nag day jël ci tukkib sëriñ bi benn ci tomb yi mu waxtaane ko mu jël ci benn tomb waxtaane ko waxtaane nañ fi yërmande waxtaane nañ fi digle ak tere ci biir Eh, tukki bi waxtaan ci yeneen ak yeneen ren ji incha allah dana tànnaat benn tomb buñ mën a jàngatee ci biir tukkib sëriñ bi incha allah muy alxaybatul bahriya durusun wa ibar tomb bu njëkk bi nga xam ne nag dama kaa jëlloon ci wax kan lañ ci war a àndal ngir jublu ci bu ma koy tudd rek joxaale ko mu nuyoo géen ngeen xam ne tey jii moom la àndal ci mu bi jotaay Eh, mooy alxidmatu wa majaalaatuha di xidma ci jëm boppam ak eh, fànn wala anam yi nga xam ne yëpp moo ci moo ci aju ak li ci aju lépp rek xidma ak li ci aju eh, kooku mooy al ustaazul baaxit al kaatib sëriñ abu bu Kebe ngeen xam ko bu baax a baax mu nekk bindkat di ab gëstukat boo xam ne bu ñu ràññee la te xam ko tom bi ñu ko jox itam euh, day mel ne jox nañu ko wàllam ci yëf yi ndax tomb la boo xamante ne ni ko ni ko peegee ak nim ci jàngat yi mu ciy génne euh, delluwaay la ci ci mboolem ñi nga xam ne dañuy gëstu ci euh, fànn gi walla ci wàll wi ku ku ngeen miin la lool daanaka mooy tax du du du jar lool ñuy sori ci xamle gi ndax euh, day mel ne moom euh, alam la day su ko taarif rawatina ci wàll wi nga xam ne ci la ñuy ci la ñuy wax kon sëriñ euh, Chouaïbou dañ lay jox nga nuyoog bokki taalib yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan fépp ci àdduna bi di ñu topp ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy amal ni ma ko waxee sànq nga nuyoo ak ñoom boo noppee ñu ñëw nag ci laaj ak tontu yi nga xam ne danañ ko jooyal jëmale ko ci yow bu ko defee danañ jooyal ay laaj jëmale ko ci ci yow bu ko defee laaj yooyu itam di ci xaar ay tontu incha allah te am yaakaar lool ci ne tontu yi nga xam ne moom nga ciy tontu mboolem ñi ma koy laajal te ñuy seetaan danañ ci am lu kawe seen jort incha allah ndax eh, xam-xam bi mate na ko gëstu yi itam egg na fa sëriñ Abu ñu bàyyi la ak bokk yi. nga nuyoonte ak ñoom bala ñuy tàbbi ci biir laaj ak tontu yi nga xam ne moom lañu nara nar jataay bi incha allah bismillah barakallahu fiikum cheikh moustapha cheikh amadou moustapha alhamdulilahi alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidna molaana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi nuyu waa muqaddimatul yàlla defal sharafu xidmatu aljanaab al adhar ni cheikhul xadim di ko liggéeyal ci fi mu gën a tànn muy jumaay ji di ko liggéeyal tamit ci li mu tànn muy jaamu yàlla kon loolu cër la sens bu rëy a la ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu ci njiit li ak membre yi di ziarit mbokk jullit yi ñuy topp waa ko seetaan di ko ci télé xidma di ndokkeel tamit mboolem taalibe Sëriñ Tuubaa yi ci bis bu tedd bi ñuy waajal muy 18 safar di ko ci santle yàlla di ko taataan xéewal ak may yi mu jële ci tukkeem ba ak liggéey ba mu doon liggéeyal yàlla ba yàlla gërëm ko defal ko ci loo xamee ne du ma wax sax waa murid yi wala julli di waaye adduna bépp wala mbindeef yëpp xañ nañ ci yàlla nañ ci àlla àggaleeg jàmm bañ defee ko nam gën a selle te buñ ci gën a ëppale ci ay tuyaaba ak yool ak xéewal barke nabi aleyhi salaam barke Cheikh Xadim ñu ngi leen di ziar baax a baax baax <coughs> jërëjëf sëñ Chouaïbou ci nuyoo yu matale yooyu kon xam naa ñu njëkkante ak euh, waxtu wi rek ci tàbbi ci laaj yi incha allah euh, bi ci jiitu mooy euh, boo ñu doon xamal lan mooy xidma dëgg-dëgg loo ñuy wax bu ñu doon laaj lan mooy xidma. waaw xidma day fii ci yoonu murit moom liñ ci jublu du yam nga doon laajte ko ci ab naar rek lu xidma di firi saw làkk eh, ndax boobaa danaan la rek mooy li ab mbindaan di defal ab surga di defal kilifaam walla yu mel noonu wala nga dugg ci restaurant service bi ñu lay defal eh, donte ne loolu mooy cosaan li waaye ñun murit bu ko waxee mooy diggante sëñ Tuubaa ak yonent bi noonu mu doon defee jël léppam jox ko ko euh, sëñ Tuubaa dafa ne euh, loolu dëhra niyaati wa qalbi wa jistati wa ruuxi wa jismaani wa kulli bila bila jël lépp jox ko yàlla wala jox ko yonent bi kon mooy sunu exemple mooy sunu misaal moom bi mu jaayante gëm mm-hmm. euh, joxewut bopp bàyyi làmmiñ mm. eh, joxewut làmmiñ bàyyi bopp nu ñu waxee joxewut rocc làmmiñ yaakaar naa war nañuy wax mm. eh, bi mu engagé dafa jël léppam jox ko mm-hmm. jox ko yàlla jox ko mm-hmm. yonent bi mm-hmm. moomatu ci dara lu yàlla soxla na jël lépp jox yàlla eh, kon xalal nañu aw yoon ne man maay seen sëriñ fii laa jaar sama diggante ak sama sëriñ sama sëriñ mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu ma fi bàyyil ci diine li ma fi bàyyil ci lépp maa ko ciy wuutul jël sama lépp nag joxaat ko ko liggéeyal ko ci ci sama man-man sama xel sama xol sama làmmiñ sama xalima lépp ba lim fi bàyyi du du du du du du du du naax saay ba mission bi mu amee woon mën a euh, àgg fa mu war a àgg. mën cee jariñ kon jàpp naa ne noonu Serigne Touba dexa digganteem ak yonent bi. moom la ko yàlla fay. Mhm. Euh, ay taalibeem. Mhm. di ko xeñtu. Mhm. di ko di jéem a euh, di ko jéem a fay di. li mu liggéeyal yàlla ci li li mu liggéeyal ñu koy jéem a fay ci moom te moom léppam di yàlla foo ko liggéeyale far yàlla nga liggéeyal moom daraam génnu di yàlla ak yonent bi far buñ ko dee liggéeyal ñun sunu njariñ lay doon di doon njariñu lislaam far ndax saarion ila magfirati min rabbikum dañoo woo ci lu ñuy musal tey ëllëg dañoo woo ci Euh, lima yuhyikum iza daakum lima yuhyikum moom woowuñu ci boppam woowuñu ci njariñu boppam waaye sunu njariñ la la ñu leen liggéeyal yàlla ñëw leen njëriñ mbindéef yi leen euh, defal keneen booy xool euh, ci Masaalikul Jinaan buntu bi ñu tuddee sadaqa al infaq mhm. wax na fa wax ju am solo ne bu yomal xiyaamee ne naada munaadin ayna ahlul xidma mhm. eh, ñu ñëw leen yéen ñëw leen rek jàll waaw yumaruna li jinaani musrihin waaw <laughs> eh, léegi ñooyu mooy ahlul xidma mm-hmm. booy xool ci bunt boobu mm-hmm. lam fa wax yu bari ay bunti xidma la ay bunt yu nu ñuy jëriñe mbindéef yi kon ci tënk buñ doon ba war a définir euh, xidma ci ni ko sëñ baa indee waxu moom nag ni mu doon liggéeyal yoon sansaram ak am na lu ci waaye ñun nuñ ko mën a liggéeyale mm-hmm. mën nañ ne xidma mooy bépp jëf mm-hmm. moo xam jëfi xel la wala jëfi yaram wala jëfi alal sax bépp engagement wala wala effort boo xamee ne taalibi bi di koy def te yàlla tax mu koy defal sëriñ bi ngir jariñ mbooloo mi jariñ yoon wi rek loolu lañ mën a jàppee ne mooy xidma du liggéey boo xamee ne dangay wutim wutum koppar. Mhm. denc sa poos. Mhm. li jox sa njaboot ñu lekk mu naan. Mhm. Euh, ñu lekk mu naan. loolu wax nañ ne yaakaar naa sëñ Abdou Khadir ko wax. mu ne bu doon euh, jur. téye sa ak bayi lekk. yoon wi mu àgg du fi àgg. <laughs> nee na damay bañ a tooñ yenn xeet yi waaye nee na nee xam nga bay lekk moom <laughs> eh, am na xeet woo xam ne sax kenn kenn dàqu ko <laughs> waaw te ñooñu ñu ci bari sax xam eh, naa jamono ay tuubeen lañu woon loolu mooy ruuxu tadxiya ah yow man ab tukkuloor laa de xanaa fu mu nekk mooy séeréer <laughs> kon boog <laughs> kon boog waaw kay. Ah, waaw ginnaaw ginnaaw moom waaw su ma waxee séeréer si waa Sine du ñu wax dara. <laughs> ñoo koy ñoo koy ah. yéen a koy kalante kon. Ah. léegi li ñu ciy déggee mooy euh, l' esprit de sacrifice ci yoon wi mm. mooy. dafa mel ne dañoo waroon a jël inna allaha shara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna loolu la saxaaba yee doon doxe sëñ Tuubaa saxaaba yi ñooy seen baay ci diine kon ñu doon tuur deret bu ñu leen joxeel alal xanaa war naa woyof ci yow ah, <laughs> ñëwal dem xel koom xanaa war naa woyof toy ci yow loolu xeetu jihaad fi sabilillah boo xamee ne du metti mhm. ak gut ca metti woo mhm. te bu noppee ñëpp ci jariñu mhm. mu mën a développé la tarbiya la ci sa ruu ji gën a jëm kanam ndax yaa ngi def sacrifice yaa ngi def iithaar wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihi xasaasa kon mu doon benn manzuuma boo xamee ne lépp njariñ la ndax dalay tarqiya dalay élever ci sa wàllug ruu ndax di def ci di la di def ci yow ay valeur l'islam yoo xamee ne jafe woon na nga am ko ci lu dul loolu mën a jël sa joxe sa alal mën a joxe sa ruu mën a joxe sa lépp te yàlla tax de désintérêt wu ci sa sa sa yëfi boppu ngir jariñ keneen ni mu ko waxee waa xinaa yaa rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma kon dafa mel ne kente sensu xidma mooy rahma ga wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin loolu nga xamee na mooy lubbu risalatu nabi alayhi salaatu wasalaam ñëw ngir sauver humanité ngir yërëm leen dafa mel ne sëñ Tuubaa moo ci tànqe moo ko dégg euh, talxiis ko ni euh, tënk ko ci xidma ba ñun sunu lépp doon njariñ mm-hmm. wolof da euh, ci tubaab wala ci italien euh, nee na euh, nit xam nga ñoom dañ naan nit nitay garabam. Hmm. ñoom nit. nit ak ak ak kiyam nu ñu koy waxee zi bun li axi. Ah. nu ñu koy waxee ci wolof zi bu kii tillu morom ji la. gise ñaari concept yi ni ñu wutee. Hmm. mooy benn bi jàpp ne relation humaine intére la ak ak sira min ajlil baqa boo mën a nax naxal noo fexe ba génn génn ci ñun ñu xalaatee ñoom waaw bu dee eh, ak ak ak ci kii nit di tey garabam yow maa la war a servir mm. je suis je suis pour te servir mm. uniquement pour te servir dama war a nekk rek yow sam Seex Ibra Faal waaw pour jariñ jërë jariñ kon gis nañ euh, ñaari ñaari ñaari falsafa yi ñaari gisiin yi. ni ñu wuute ni mm. euh, boo gisee bayit woowu suñ ci waat wax ne. li aw si lazi uridu wan faay. bi yàlla wara yaa mox ni an mid faay mm. benn bayit bi euh, mu xaabalaa ngi mm-hmm. maanaam boo boo ko xoolee ci arab doo ko ci gis. Mm-hmm. waaye ñaari ñaari ñaari ñaari. système de vie. yu yu jàkkaarloo nga fa. Mhm. wan faay biyal waraa. Mhm. ak mid faay. Mhm. philosophie boo xamee ne dafa ñëw <laughs> nit nitay ak tillam till la ci borom mid fan lay lay utiliser pour domte mbindeef yi ni ñu koy waxee ti euh, coloniser leen mm, sal bu woon bu piller seen seen seen ressource économique moom leen ina nag wan fa biyel wara man lépp lu baax jox ma ma jëriñ ñëpp. dina ñaari falsafa yooyu. mu mel ni yittewoo jariñu jariñu ci nit ñi ak yittewoo jariñ nit ñi. kay ñaari mbir lay nekk yoo xam ne. servir kii lañ nekk. l'humanité ex servir. de l'humanité mm. gis nga ba ci booy xool dafa am benn eh, ñaari ñaari système yi. Mm. ba ci sax mm, euh, tubaab ak tubaab ah, ak tubaab. dañu mel ne daal guy am seen ah, diggante waxtu ne <laughs> kii di wane valeur yi asamaan kii di wane valeur yi suuf walakinahu axlada ilal ardi kii di ru waaw tabax waa kii nag di jéem a suut di décentré wu ci ay ay ay njariñam ah ku la gën a bëgg sa alal ku la gën a bë nga man koo bàyyi joxe ko ci yàlla tax loolu c'est symbolique dafa am lu luñ luñ bëgg def ci yow kon ki nga ñaari ñaari ñaari exemple yooyu. Mhm. day wane dëgg-dëgg. Mhm. fi ñu sëñ bi jëmee. Mhm. mooy ñëw leen. ma yëkkati leen. ñëw leen ma teg leen ci yoonu saadatu daarayni sax daareen googu nag du doon ci ja lor keneen du doon ci exploité keneen du doon rivalité ak keneen waaye ay fexe ba yow noo amalee njëriñ njëriñ keneen jërëjëf sëñ sëñ sëñ sëñ Abo Chouhaïbou day mel ne eh, day mel ne ci tomb boobu sax lii rek daa xaw a tënk waxtaan wi ndax eh, day mel ne wax ji buñ ko eh, li ciy toppaat lépp exemple lay nekk rek ci laytaay gii nii te mooy xamle lan mooy xidma mooy fexe ba jariñ nit ñi fexe ba amal njariñ doomu aadama yi te ni ko tënkee ci biir aaya boobu te mooy yërmaande ji yàlla di wax ci yonent bi alayhi salaam ne ko moo tax mu yónni ko la koy symboliser mooy fexe ba am yërmaande ci nit ñi te yàlla yàlla waxoon wala wala wala yonent bi waxoon na ne yërëm leen ñi ne ci kaw suuf yàlla mi moom suuf mu ne ci kaw yërëm leen yarhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama mm-hmm. kon day mel ne ni ngay wanee yërmaande ci nit ñi mooy fexe ba féete leen fenn mm-hmm. mu mel ne ñaar la kon maanaam li yow nit ki ñaara a koy seq mm-hmm. digganteem ak boroomam ak digganteem ak nit ñi mu mel ne digganteem ak boroomam aw ubudiya moo fi nekk mooy buur mu war a jaamu la waaye digganteem ak moroomam yërmaande fa war a féete mooy di leen yërëm di leen féete fenn te day mel ne sax am na fu ko fu ko fu ko yonti feneen ne ki gënal nit ñi ci yéen mooy ki leen ëppal njariñ mhm. mu ba léegi muy biyal wara bi yan fan googu mooy mhm. mooy mën a amal njariñ nit ñi mhm. te ki ëppal njariñ nit ñi mag ñi sax dañ ko daa dañ naan boo bëggee guddi fan amalal njariñ nit ñi ndax nit ñi ku leen amal njariñ yàlla borom nit ñi bàyyi la fi addis ba sam ko waxee de <laughs> euh, kii sanaa sanaa taqi masaari suu nuñ ko waxee addis ba euh, sanaa sanaa'ihul ma'ruuf waaw yaqi ñoo fi des ah. Ah. kon day mel ne ku gën a amal njariñ nit ñi rek mu mel dëgg-dëgg mooy sensu dund gi nit ñi li leen fi bàyyi mhm. mooy jariñante ci ci wàllu woowu moo tax day mel ne waxtaan wi lay taay gi dana am solo lu am wax nii mhm. te ci falsafiyan mhm. mooy yàlla euh, dañuy wax dañ ne alaaqatul yàlla ak jaam bi dafa am ñaar uh, gannaaw sharia waaye nag uh, saani ak masno sa sa loo defar sa xasida gi nga gi nga gi nga taalif ni ko sa téere bi nga mujj a génne ni ko fonke ni nga ko am na bëgg goo ko bëgg goo xam ne maa ngi uh, ci aflatun di wax ab débat bu ci am ci wut këtub xaalis di wax muy wax nag ne bëgg gi mu bëgg xaalis dafa am ñaar bëgg eh, liggéey gi mu ko liggéey. Mm-hmm. nga ne moo ko créé. moo ko defar eh, ci ndaw def entreprise mu yéeg ba mu àgg fi. Mm-hmm. googu bokkut ak bëgg xaalis goo xamee ne. ngir jariñoo ko la. waaw eh, artiste bi ni muy li mu defar ni mu koy bëggee. Uh-huh. c'est autre chose. yàlla nag noonu la ñu bëggee. Mm-hmm. yàlla dañoo bëgg. <laughs> moo tax nag ku bëgg. projet bii. filmom bii lii. Uh-huh. tamit nag danga ngaa bokk ci da ngaa bokk ci leen almahabal kawniya mooy univers bi fi mu jëm nga jëm fa fii fii kii kii moom univers bi fi mu jëm nga jëm fa moo tax mu am solo mahabba ak rahma googu ñu wax mooy bëgg bëgg-bëgg yàlla am uh-huh. moo tax jëriñ mindee fi ay dugg ci euh, al al al ñu ko mën a waxee al bi jàngal na ko ci beneen anam sax ba mu naan waraa'i fii kulli xalqin xaman xaman xalaq maanaam nit ñi maam li ngay sàmm ci ñoom mooy ak yàlla mi leen bind boo ko sàmmee ci ñoom rek yàlla day am mbégte moo xamante ne day jóge fi moom di wàccaat fi yow mm-hmm. ndax yaa am ko ci bàyyi xel ci ci ci liggéey boobu nga xamante ne wala eh, mm-hmm. sàkk gim sàkk jaam ñi mm-hmm. eh, am na ci misaal ma ko suñ Fallu di di di misaal suñ Fallu danaan wax ne buñ bu ñu waxee diw sàngam wala ñu wax ñoom diw sàngam di leen di leen xebet wala ñu leen wax leneen danaan danaan ah bàyyi leen sama nàngam yi Mm. damay am damay ba am yooyu ba ca waaye daan ne bu ngeen gisoon mbind moo xamante ne dafa bàyyi ko ci ngeen fonk mm. da ngeen koy fonk du mbind ma ngeen fonk waaye ci kim bàyyi ko ngeen fonk kon nag jaam yàlla yi nga xam ne yàllaa leen bind bàyyi ko fu moom rawatina lu jóge fa yàlla dañ ko war a fonk mhm. nga ne moom noonu doon xoolee rapport boobu la amoon diggante am jaam yi loolu taxoon mu am ci ñoom yërmande ak cofeel googu te loolu la loolu mooy wuutu gi ñu war wuutu yonte bi ci mhm. ila rahmatullah mhm. xam naa foofu buñ ko toppee siñ siñ siñ change bu waxtaan dana danañ ko far tënk ci bunt bu njëkk bi rek ndax day mel ne xidma daa nekk tomb boo xam ne moom buñ ko buñ koy waxtaan dana jéem waaye waaye waaye solo si mu am nii ak niñ ko mën a xamlee nii bu boo boo tënkal rôle bi nga xamante ne eh, xidma am na ko ci li murit gi réaliser li ma murit yi ni mm-hmm. niñ taxawee taxawaay bi ñu am mm-hmm. lan la ci xidma di jëmmal foofu xam nga fit moom booy xool ñun moom bu dul woon a xidma mm-hmm. jumaa ji du fi taxaw est-ce que ah. <laughs> moom lii mooy symboliser yoon murit fii ah, fii ñu toog ah. xidma doon ko taxawal kese waaw bu lay wax euh, yaakaar naa sëñ ki ngiraan la ma sa dégg wax nga xam ne sax mm. bu ñu euh, tubaab bi sart yi waxoon ci li leen fay ñoom bu ñu leen ko fayee ah. dañuy ñëw joxe joxewaat ko <laughs> ci gasum <laughs> ah, raay bi waaw gasum raay bi mooy alhamdulilah yoon woo xamee ne bi mu sosoog léegi da nga naan ab siècle lay toll ak yooyu mm-hmm. mën a réaliser li fi réaliser mm-hmm. euh, taxawal ñaareelu dëkk ci réew mi mm-hmm. ci économie ci mbooloo mu bari. Mhm. ci Kassava Soukaniya. Mhm. taxawal jumaa ju toll nii. Mhm. taxawal ca Masaliku Jinaan université bi Daaru Salaam Daarul Moxti Guédé foo dem jumaa yoo xam ne benn jumaa rek. lu doy na sëkk nga dem ci wàllu éducation nga gis li ñu am ci cadre. kenn xamul nu mu waxuma la nag ñi nga xam ne sax ay murid lañ doon boo demoon France cadre yi ëpp ci sénégalais ay ay mm-hmm. waaye sax ñooñu du ceegi ne ci sunuy daara lañ génne mm-hmm. waaye dama ne al azhar mm-hmm. la nekk lam defar nga dem ca xel koom ak daari sëñ son yi ak daari doomi sëñ Tuubaa ak daari taalibe loolu lépp ci nga dem ci wàllu éducation wallu goo dem wa euh, nga ñëw ci daay xam naa loolu danañ ci ñëw sax mooy ah. ci loolu mooy ñetteelu tom bi muy majaali waaye loolu lépp <laughs> mhm. nuñ ko defee mhm. mooy ñoo xamee ne yàlla soxla na mhm. ñu ne bu yàlla soxla ma man moomatuma sama alal du ko fekke sama xel du ko fekke sama doole du ko fekke sama sama sama dara du ko fekke te nag yaakaar naa ne Eh, ruuxul tatawuh googu ruuxul mubaada ruuxul eh, eh, infaaq fi sabilillah ak tadxiya googu mhm. nag fu lislaam ak moo faagale ndax ña doon joxe seeni bakkan ci yoonu yàlla mhm. ba tey lislaam agsi fii mhm. mooy nangoo joxe ak nangoo joxe li nga moom ci yàlla kon nag loolu sëñ Tuubaa bëggoon dundalaat ne li yenn saa salaam jàngale woon ci lu baax du jaay ne ay théorie la du jaay ne ay ay ay la waaye lu mën a am la te day am di sax ndax nit ni ko yàlla donte ne mën naa àgg ca niveau ba gën a kawe waaye mën naa wàcc bi gën a suuf bu ñu ko jàppalewut man sëriñ Tuubaa dinaa jàppalewaat nit yéegalaat niveau am mm-hmm. ba mu àggaat fa yoon sans salaam doon euh, xëccaat nit ñi di mm-hmm. ñuy wax jumaa ji bi koy tabax mm-hmm. ak ci condition de vie yi Sénégal tolloon ku ne la ci ay année quarante ay benn nangam ba quarante mën ñëw tabax lii ci communauté buy dóoru juddu dëkk te tuuti lool Sénégal gépp yaakaar naa jamonoy tubaab bi ay un million mënu ci ngoonu wala un million yi teg tuuti mhm. ah? euh, nekk ci périphérie alamul islami <laughs> waaw nekkuñ ci centre bi ci économiquement it doonuñu woon du réew mu prospère lool. amut euh, kon da ngay xam ne volonté ak détermination dogu ak joxe sa lépp yàlla. moo tax lii mën a àgg ñoo xamee ne bi ñuy wax nee na euh, ñaraan yanoo xeer ya ndokk. Mhm. di ko indi fii. Mhm. mën nañu sax am sax luñ lekk sax duñ ko day bëgg yàlla bëgg sëriñ bi mhm. xam ne sëriñ bi naxu leen mhm. luñ def danañ am lu ko ëpp moom mu jaral leen ko loolu moo àggale fii kon solos xidma moom mhm. du du du du lu ñuy théorie waaye euh, teg sa bët la fo ñë euh, du jar ngay bouger bo fenn bu dee France nga demal ca aulne yi danga fekk génn kërug sëriñ Tuubaa gu ñu fa taxawal wala ca ca Oh, ca kii taverne <laughs> nga dem feneen boo doon foo laal lamb dañ la nee lu lu xidma jariñ lu ñu xidma jariñ nga ne ko mi ngi nii lii lii mm-hmm. ah, day mel kon dawru asas la la la la am central ndax sëñ Tuubaa bañ ne ko moom sax euh, xadiimu rasulillah moom gara garaatam bi gën a mooy xadim mm-hmm. kon yoonu murit sax mënoo koo comprendre mënoo xam lu mu def buñ ci génnee xidma mm-hmm. ndax bu ci génnee xidma mooy ulum islamiya yi daara yi ñu leen waaw donte sëñ moom beneen dimension la hmm. waaye ñëw mobiliser ruux julli di àndandoo nga taxawalaat communauté hmm. ab mujtama comme mujtama madina hmm. ah loolu doon xayru ummatin uxrijat linnaas jë wala teg ko sa kanam ne fa nga bëgg a ni ko sëñ Tuubaa mobiliser à travers xidma eh, dëgg-dëgg réussir ko gisuñu ci temps moderne bi. Mhm. ñu ko ñu ñu ko jëfee noonu ñu ko defee noonu. Mhm. dëgg la jërëjëf euh, kon day mel ne euh, bu ñu bu ñu bu ñu déggee dëgg-dëgg ci tontu loolu daal mooy dëgg-dëgg xidma mooy li taw tawu woote Sëñ Tuubaa bi. Mhm. te fi mu yegg itam yëpp rek moo ko fa eggale. liñ def lépp itam ci euh, méthode boobu lañ ko defee. mooy Eh, yàlla ñor la mm-hmm. nga fas yéene liggéeyal yàlla li mm-hmm. ñu koy waxee jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla mm-hmm. jaamu yàlla moom nit ki mooy kooram yeeg jullee ngi yooyu waaye liggéeyal yàlla nag mooy fexe ba jëmmal dara mooy taamir maanaam dundal suuf si fexe ba koo mën a jariñ nga jariñ ko te yàlla tax te day mel ne li ñu taxawal yëpp loolu lay jariñ tudd nga ci ci ay ay ay ay ay ay ay ay anam yu bëri te ci anam yooyu sax ci lañ ñëw mooy majaalaat yi nga xamante ne liggéey bi feeñ na fa ca jar te jariñ fu bëri mooy xidma dëgg-dëgg ñu ko doon wax maanaam lii murid yi liggéey te te jëfee ko ci ci ci turu xidma nga xam dañ koy def noonu muy jariñ muy jariñ ñëpp jariñ réew mi loolu buñ ko doon xool ci fànn yi mu laal yëpp euh, ndax mën ngañ cee indil ab tënk ci fànn yi nga xamante ne mhm. boo fa doon làmb li murid yi réalisé te réalisé ko ci xidma nga xam ne xaaruñ ca geneen pay gu ñuy jot directement waaye dañ koo def rek muy jariñ réew mi yëpp ginnaaw bu mu jariñee murit gi ba noppi boo xool euh, ci majaalaatu xidma ni mu mhm. euh, comme wa rahmati wasiat kulla mhm. shay'in wa ma arsalnaaka illaa ah, dellu si nañ ci rahma ji kon <laughs> waaw <laughs> comme ni ñu doon wax euh, nga xam ne rahma wasiat kulla shay waaw wasiat wax falsafa dañ naan ñaar yi Euh, rahma ak ilmu mooy ñaari awsamul asiya yaani hmm. moom ixaata lépp hmm. ba mu des ilmu ëpp doole rahma ci ne rahma la yataallaqu bil bil bil xaaliq hmm. wal ilmu yataallaq bi yàlla allah yaarifu nafsu walakin laa yarhamu nafsu waaw dëgg la loolu ci irfaan ak tasawuf euh, maarifa ni dañ koy wax yaatu la noonu nga xamee ne noonu la li ma bëgg sax foofu bala maa sori bala maa wax mooy li taxaw beneen kii la buy gën a yaatu mooy mooy mooy euh, rahma mhm. yoon mi wax ko da ngay yërëm lii bàyyi lii bàyyi lii da koo taw si rek mhm. xool xidma ba mu ne wax na yaram na bil li mu abadna wa rahma euh, indi ko bi ma jaal bi itlaq fépp léegi foofu la ñu Sëñ Tuubaa libéré. Mm-hmm. lépp lu koy firndeel rek waaw fépp foo xamee ne soxla nekk na fa nga rekk boobaa mën nga ko fa appliquer. Mm-hmm. mu des tariqa bi fi mu définir fi xalifa bi jëm ak kilifa yi diine yi jëmee fa joxoñ ne fii mooy nécessité mooy mm-hmm. priorité boobaa foofa foofa moom mooy nekkat priorité waaye bu xoolee ci ay domaines yoo xam ne murid yi yoon nañ fa réaliser lu bëree bari man nañ ci tudd lu bëree bëri li ci njëkk mooy wàllu éducation tudd nañ fi mhm. la Azhar tudd nañ fi doomi sëñ ci waay yëpp ku ne daara janga nga taxawal mhm. la fa def la la fa defar mhm. kenn xamut ay junni junni yoo xamee ne ñoo leen defar yar leen def ci ñoom diine def ci ñoom xam-xam def ci ñoom jikko yu baax bañ doon non seulement ay borom yi xam-xam waaye mën a doon ay imaam mën a doon ay sëriñ mën a doon ñu ñu naw ci wàll yëpp dëgg la <laughs> te bañ koy def. xaaru ñu fay leen war dara. Mm. laa laa nuriidu minkum jazaan wala shukran. innaa naxaaf min innaa goxee sax innaa. innaa nut'imukum waaw. Ah? innaa nut'imukum li wajhi llaahi waaw. laa nuriidu minkum jazaan wala shukran. Mm-hmm. booy xool doomi Sëñ ci yi ci bëree bari ba taxawal daara luñ mën a yore seen kër sax yoruñ ko. Mm-hmm. te ba kuti ab ab aada bu buy wëy la ci da ngay gis ñi fii sëriñ si kuy taxawal daara da koy def ne lii war téefam la da cee war liggéey sëriñ Tuubaa mhm. bu demee muy metti metti ba caaga am lu ko ci fekk si ñu ko ciy jàppale yàlla yàlla moom du bàyyi kenn waaw ni ngay ni nga ni nga futtikoo bëgg a liggéeyal yàlla na ñeen ñeneen di ñëwee di futtiku yi di la liggéey di ci yow <laughs> est-ce que nu ko waxee ah, ah. wax di xawaay jël dina daa mu fii xidmat yi booy ñëw moom daawaam am <laughs> <laughs> sëriñ Tuubaa dañ ko dafa ne udduhuni astajib lakum mhm. ne udduhuni mhm. na tekk lu yàgg astajib lakum waaw ndax mafhumu zaman indallahi wa inda nnaas wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduun yow eh, bi ñëw te fekk jawaab baa ngi ñëw mi ci yoon wi waaw day day ba la la bi di ñëw <laughs> ay ñaata ñaata ñaata temps lay waaw balaa egsiwaat ci yow. dañ ne saa soo ne boo wooyee yàlla na naa bañ a naa tëj parenthèse yooyu bala ma fàttali ma doon wax. waaw li ñu doon waxaat sax. <laughs> ngi woon ci majaal ba léegi. yaa ngi ci éducation li nga xam ne maanaam réaliser nañ ko. ci wàllu éducation. nga xamante ne ñoom dañ ciy ñëw di ci liggéeyal yàlla. xam nga loolu fi mu ne nii du théorie. ne ci yéen xam nga daara seen daara ya ngeen génne yéen ñëpp ñun ñii daara yi sëñ Tuubaa <laughs> foofu alhamdulilah. nga ñëw ci. sur le plan économique. économique. Mhm. wala sax nañ wax lu xoolal rek ci wàllu euh, social ak euh, ci wàllu euh, daayira yi li ñuy def. Mhm. gis ngeen ñiy tabax fii ab ay morgue. waaw def éclairage public. Mhm. ñiy def ci wàllu santé. masa kii. Matlaboul Fawzayni nga gis ci. Euh, Touba ci kanam gi mujj juddu bërki démb di def ay ay ay ay ay ay ay ay ay kiimaan laa ay yu yu doon modèle mhm. ci wàllu di tabax wàllu ay ay ba tabax ay poste de santé di di def di defar ay yoon di assainissement lu ne mhm. te lépp lu dul murid yu gis ne war nañu liggéeyal yàlla buñ leen ci wooyee ñu jël seen alal jox buñ leen ne ñëw leen gas ñu ñëw gas mhm. fuñ leen woo ñu jëm ndax am bëgg liggéeyal yàlla te xam ne fi koy defit fu wóor la ñiñ koy joxe ñu ñu wóor lañ mm, kon wàlluk santé ña fay liggéey liggéey boo am am solo wàllu ko wàllu yu bëree baree mm-hmm. Mm-hmm. waaye mën nañoo jàpp ne euh, lu mel ni ki wàllu tanzimul mujtama xam nga sëñ Tuubaa dafa indi mm-hmm. booy xool euh, ci politique politique dañ koy définir ne mooy fànn gi ñuy sayto yëfi mbooloo mi. Mhm. xidma mooy lan mooy jëriñ mbooloo mi. wala jëriñ keneen euh, wax kon. <laughs> waaw kon kon dëgg dëgg dëgg mënees na. mënees mooy mooy xidma. ah hmm. bu fekk bu jaar yoon. bi jaar yoon bu jaar yoon bi dëgg daal. jaar yoon mooy nit ku jug ngir jëriñ askan wi. waaw te du ci seen ku jógoon jàpp ne yow sax xel ko mooy taxawal. yoon wu baax wuñ mën a defare Sénégal suqali ko ko teg programme yu baax loolu booba yaa ngi xidma xidma bil mafhumi siyaasi am na waaw bil mafhumi ijtimaahi bil mafhumi iqtisaadi bil majalaat mutaaddida mhm. isan bi ma ana cheikh atlaqal qaala bil muslimina abadan wa rahma walam yuqayidhum fi majalin doona majal mhm. idan yajibu an an an nutriqoo kama atlaqa day buñ nii buñ ko buñ xamoon luñ firi ci wolof comme neex ci ñoom lool <laughs> waaw dama ne sëñ bi <laughs> comme bi mu naan ñu li euh, nañ liggéeyal mbindeef yi mhm. te tënku ko ci benn walla bàyyi mhm. geneen wàll comme na yàlla waxoon yërmande waxul ne yërmande ni bàyyi dafa ne làmboo na lépp nañ fexe ñun bu ñuy liggéey Sëñ Tuubaa na làmboo lépp ci luñ man dëgg la te jamono laaj ko. Mhm. waxtu laaj ko. Mhm. ak ak ak ak circonstance. Hmm. bu ko defee ndax Touba ci kanam gii ba muy juddu. Mhm. mooy aajo ju taxaw. laaj lii ñu ñu créé noonu. waaw Madabul Fawzeyni ba muy créé wu. circonstance yoo xamee ne. Touba dem na ci màggaay ak fi réew dëkk bi toll. soxla nañu ay fajukaay. amoo gu fii. ñu ñu ñu tontu ko. Euh, indi lu saafara loolu. Mhm. yéen ñii seen seen seen seen daayira bi bi muy taxaw. Mhm. dafa dem ba euh, laaj ko nañ ko waxeeti mhm. dund gi laaj euh, dëkk bi laaj ko. laaj ah. mooy. jumaa ji waaw barab bi ni mu doon dundee ni fi mbooloo mi di ñëwee. raj laj loo gi ak ñàkk nosu gi. ak lu yu baree bari. il faut mu am. kon nag noonu la nga xamee ne saa suñ yéegee. ni lii jamono laaj na ko ñu génne sunu xel génne sunuy xalaat génne sunu xol génne sunu alal jox ko yàlla nose ca euh, pour waaw tabarkàlla jërëjëf sëñ bi day mel ni kon euh, ci anam yu bari wala aspect yu bari wala domaine yu bari manees na fa fekk Euh, xidma ça dépend kon ci nit ki fi mu ko bëgg jariñoo rek kon ku mënta xidma amut ndax kenn ku nekk lam man man na caa xidma maanaam kenn ku ne ku amul njariñ amut mooy li li wolof yi wax dañ naan ku ku nit ku amul njariñ amut kuñ xamul dañ ko doon jariñoo moo kon kenn ku nekk am na lu mën a xidmaal sëñ bi nga xam ne maanaam màggal si kon moom war naa am pas-pasu man damay xidmaal ji Sëñ Tuubaa ma demee maanaam moom day am pas-pas buy ñëw ci màggal gi day xidma moo xam la man nag moo xam ca waañ jëm moo xam day mm-hmm. jëkkëre àllam ko moo xam mm-hmm. day jënd ndox jox ko nit ñi moo xam a def mm-hmm. waaye na fexe ba am pas-pasu moom liggéeyal mbooloo mi liggéeyal sëriñ bi ci mbooloo mi bu ñëwee maanaam liggéey fexe ba am amal njariñ nit ñi loolu mel ne loolu xidmal fard yo xidmal jamaa yo ay domaines yu yaatoo yaatoo xam bu ne ma nga xidmal jamaa gis nga daayira yi ni ni structuré ku ne am na sa vocation benn ci mbooloo yi fi nekk noo fa ma loolu dëppoog yow ah, domaine yi fi nekk yit yu ne gis nga da ña nekk ca hôpital ya hmm. seen i am nañ ña ngay dajaloo ah, di jox sa bu màggal jotee ah. ñu def ay don de sang ay eh, consultation gratuite ak tel tel tel yooyu yëpp ay ay yooyu yëpp ay forme la mu mel ne sax maanaam ñi nga xamante ne ñooy mécaniciens yi rek Ah. nga xam ne ci wàllu mécanique la ñuy jëfandikoo bu bu màggal jotee ñoom tamit dañuy dañuy yëg ne ñoom mhm. ci majaal boobu ñu nekk dañ cee war a liggéeyal sëriñ bi mhm. def seen association oto bu paan ñu ne ci yoon yi dépanne ko mhm. maam li wajillaahi dimbal ngir dimbale nit ñi ñu ngir jàppandalal leen loolu ñu mën ñu mën cee def moo mel ni kenn ku nekk ci domaine bi nga nekk daal dañ ciy dañ ciy liggéeyal liggéeyal sëriñ bi loolu nag xam naa lu lu lu gën a mat a bàyyi xel la kon li ci mat a am solo rek mooy laytaay gi Mhm. mooy kenn ku ne boo koy def nga am yéene ci ne yow lii nii mhm. yaa ka ne ca barabu jumaa ja di ko def wala ka nekk feneen wala ka ne ca waañ nekk feneen di ko def yéen bokk lu ngeen def waaye mën ngeen a wuute mhm, solo la day mel lu yaatu euh, li gën a sant jëree sant Sëñ Tuubaa dafa mel ni tarixa yi ci des ak yeneen yoon yi niñ daan yóbbee nit ci yàlla te yëpp a yóbbu ci yàlla euh, dañ ko defoon loo xam ne ab élite ñoo ko man ñoo xamee ne dañuy kii wërd fanaanee naafile <laughs> di lu es waaw sëñ bi ñëw moom ne ñëw leen saariyon ila maxfirat min rabbikum <laughs> ibbi bunt yi ñëpp dugg <laughs> ne lu yaatu la daal waaw yàlla moom yaakaar naa ku ne nag fa nga nekk rek mën nga faa mm. àgg ci yàlla yooyu ci ci ci xusuusiyat sëñ bi la waaw loo xamee ne eh, yaatal na mbir mi mm-hmm. ba fexe na ba ba ba ba ba ba populaire bi. Mm-hmm. di dund ruuxu tasawuf. Mm-hmm. di dund ruuxul intima ah, ci mbooloom lislaam mm-hmm. di ca joxe. di ca liggéeyal yàlla te grâce ci ni mu comprendre société ak mujjug jamono li mu laaj. xam ne du laajatul uzla ak mhm. intiwaa mhm. waaye day laaj génn ci terrain bi mhm. euh, fexe ba mucc te muccale ni ko suñ ci waxee ca ne ñetti ñetti kilifa yi ne ki ci man mooy ki fexe ba mucc te muccale waaye ki mucc bàyyi njabootam jàmbaar la waaye nag du du des na waaw des na waaye kii jàmbaar dëgg mooy kii mucc te mucc le sa gën a sàggan ndax naa mooy ki fexe ba mucc mucc ah, mucc awa yes bi la yes bi la mu mel ne kon loolu beneen déggin la ci ni sëñ bi déggee tasawuf ci jëm boppam mhm. waaw day fexe mel ne yaatal ko ba nga xam ne kenn ku ne tasawuf sëñ Tuubaa ji nga xam ne mën naa wuuteeg yeneen tasawuf yu njëkk ya am mhm. na jàpp ne ay nit rek ñoo ko ñoo mën a dund tasawuf mhm. waaye moom day indi tasawuf ci beneen anam boo xam ne ci société bi mujtama bi ñëpp dinañ mën a dund tasawuf boobu ci majaal bii mu leen ubbil wala bunt bii mu leen ubbil te mooy buntu buntub xidma ñu mën caa jaaree nekk ay mutasawif yuy liggéeyal yàlla ci jaam ñi di leen jëriñ loolu loo am solo la waaye buñ doon xool sëñ bi ci mujjantal gi ndax lay mel ne waxtu mi ngi dem mi ngi dem lu bëree bëri donte waxtaan wi duñ ko duñ ko yëg solo si foo ko takk weesu na ko waaye défi yi nga xamante ne eh, mi ngi mi ngi mi ngi lonk-lonkal wala mu ngi gàllankoor léegi-léegi xidma bi nga xamante ne murid yi ñu ngi koy defal Sëñ Tuubaa wala mi ngi jóge ci murid yi di di murid yi di ko liggéey liggéey boobu murid yi di liggéey bu fekkee am na ay défi wala ay gàllankoor yoo xamante ne mi ngi am boo ñu ci doon tënkal yan gàllankoor nga jàpp ne daal eh, buñ ko gënee saytu ci biir liggéey bi eh, li ñuy xaar ci xidma dana dana dana gën a am solo danañ gën a mën a am ay réussite. waaw bi ci gën a kii daal mooy tamit ñu xam fiqul awlawiyaat priorité. Mhm. ndax am na ci loo ne naan euh, watkat yi yéen euh, watkat yi xëddeen dañuy yëgoo waaw maanaam lu lu coordonné mm-hmm. euh, majaal bu yaatu la ñëpp def bu fekkee ne ñun ñëpp ki mën naa doon dem dem ca majaal bee kii nekk ca majaal bee ñëpp nekkandoo ci benn majaal mm-hmm. loolu ihdaaru taaqa la day indi gaspillage ak euh, énergie bu. bu waaw pour mu gën a efficacité. Mhm. il faut ñu orienté taxasus am. Mhm. ñii dem ci lee ñii dem ci lee ñii dem ci mhm. ndax ma jaara di yaatu na bu pour boobaa mu doon njariñu mbooloo mi. il faut tamit ñu xam priorité yi. yow ni gën a soxla ñu gën cee jox jox ko yitte. fi mu ne nii par exemple rek jox ci misaal Serigne Mountakha dafa ñëw gis na Serigne Sidi ñëwee. dañoo orienté mhm. ci ne gis ne yoon wi lim am fii war na ko mën a am ci capital ba mu taxawal lool gis nañ jamono ji sëñ Muntaxa bi loolu noppee dañoo orienté ci bëgg-bëgg sëñ Tuubaa woon boo xam ne dafa noonu jàkka ji bu jàllee nañ tabaxal daara gi mu indi mu jëmee fi nit kon dafa mel ne suñ énergie bi bépp dafa war a gën jëm foofu mhm. ndax ñu mën a Euh, réaliser loo xamee dañuy jëriñ. Mhm. fu kon foofu priorité la. Mhm. bu ko defee dañuy xaw a woy duñ woyofal yeneen yi waaye nag nañ jiital lii. Mhm. mooy tax euh, mu njëriñ li. mën feeñ bu baax a baax. beneen bi ñu moytu lu folklore bu ëpp. Euh, ak loo xamee ne wanewu lay xaw a niru ak yooyu. ndax nag xidma yàlla ngay wut. yàlla moom Euh, ixlaas lay laaj. ak euh, waaw yàlla tax nga sellal ci. Mhm. bu loolu jàllee daal. Mhm. Euh, mag nag mu bëgg a jëlee alalam. Mhm. walla xolam wala ala dooleem jox ko yàlla. loolu mënuñu lu rafetlu ko nag. waaw nag mm, waaw. Mm, ak bu donte sax dugg ci priorité. yow ruuxu diin def nga ko. mooy fu yàlla wootee nga wuyu. waaw boobu lu loolu moom ko mën a ñëwee rek in tubdu xayran aw tuxfu <laughs> waaw alhamdulilah macha allah <laughs> mu ci waaye waaye waaye sëñ bi day mel ne foofu tamit eh, day mel ne kon xidma buñ ko xoolee ci majaal yii muy dox yëpp mhm. day mel ne benn xuwa la maanaam doole la mhm. wala potentiel la boo xamante ne war nañ koo gën a mën a Euh, gën a mën a valoriser wala mm-hmm. exploiter ko bu mu gën a mën a jariñ nit ñi mm-hmm, mm-hmm. bu pour ñu organiser ko bu mu gën a mën a jariñ nit ñi ban yan taw suyaat nga ci nga ci nga il faut tamit comme ni sëñ Saliou Salaam defoon ak yeneen bindkat yëpp temps yi alhamdulilah théoriser xidma ba mu leer ci xel yi macha allah yoon wi moom daa mel ne taaxaat yu jékki-jékki naay ma doo jékki-jékki rek di di di tafajur infijaaru boobu ba sur le plan philosophique ak ak euh, mental mbir mi leer bu leeree mhm. euh, dana dimbale day nekk soubassement intellectuel bi mhm. euh, bind yooyu yaakaar naa baax na ci mhm. beneen bi it yi ni ñuy nosoo dana dimbale taalibe yi xam fi ñuy jëm ndax nii sëñ bi ne waru xatul ma ixwaanu lahum himanum yoon yàlla boo ci bëggee dem te amoo wéetu yow dana la xaw a sonal mhm. gis tamit sa mbokk yi ñu lay orienté bi fi ñu jëm mhm. dana tax tamit euh, loolu nag bu ko defee euh, kilifa yi mhm. ak ci ni ngeen di def intellectuels yi ak borom xam-xam yi di orienté nit ñi fi nga xamee ne war nañ faa def alal ñu fay def loolu dana dimbale gis nañ ci gannaaw euh, daara yi daa daanañ am jafe-jafe waaye léegi gis nañ borom alal yu bari bari léegi ñu ngi tabax ay école ak daara mhm, mhm. gis nañ foofu euh, majj maj majaal la boo xamee ne euh, am na ci jamono yu ko soxla woon lool lool mhm, waaye dafa mel ne lu war a am dañu gis ne buñ ci tàmbalee waxtaane tàmbalee ci jëme nit ñi rek dañuy gis tàmbalee ay solution tàmbalee ci am waaye euh, toujours moom fi sëñ bi fi ñu sëñ bi orienté Euh, li boroom xam-xam yi jàpp na it ne lii priorité le ñu ci orienté nit ñi. Mm-hmm. Mm-hmm. jàpp naa bu ko dee def loolu dana mm-hmm. gën a dimbale. Euh, mais en tout cas euh, doole la joo xamee ne. exploité guñ ko fam yam. nañ ko war a defee nañ ko war a exploité dëgg-dëgg. te it mi ngi dépendre ci suñ tolluwaayu économie ak suñ tolluwaayu xel. pour gën koo mën a améliorer. waaye amut fu mu yem moom. amut fu mu yaakaar naa ne bu ñu demee ba ci kanam fii ak ñu juróom fukki at hmm. euh, sax yeneen majaalaat yu yaatoo yaatu dana am suñ tolluwaay dana fa àgg ñu gën koo gën a mën a waaye nag l'esprit bi du mooy ruux gi moom du changé hmm. la lay taay loola hmm. la tax ñuy def loola mooy wut yàlla ak liggéeyal sëriñ bi rek loolu rek moo ci kon foofu foofu liñ ciy gën a déggee rek mooy liñ ci doon wax léegi bañ ci am mooy ngir ñu gën koo mën a gën a mën a def benn organisation. moo ràññale fi priorité yi nekk. ñu xam ko. par exemple waaye itam bañ a jaxasee rôle yi. kenn ku nekk lim man mu nekk ca. par exemple. Mhm. lu mel ne kii ay réewi tubaab bi. Mhm. da ngay gis ne foofu lu jara taw ji la. Mhm. ndax da gis ne suñ tubaab mënoon nañu gën a yeneen rôle yu gën a. Mm-hmm. donte yaa ngi nag. Mm-hmm. yu am solo di ko rafet lu baax baax waaye jàpp naa ne. Mm-hmm. mën naa gën a mën naa gën gën a gën a kanam. te loolu problème priorité mooy yow yaa ngi nekk ci réewum ja réewum réewum biti. ah fu mel ne ay France nga xamee ne ñoom macha allah ña nekk ci daayira yi ay intellectuels yu kawe lañ niveau yu kawe lañuy yor. ñooñu uh, bu fekkee ne dañu jël seen priorité def ko ci ay wàllug ay def ay xew ay cérémonie ak xew-xew. dafa mel ne. danañ dana am sooxe guy am mm. dafa mel ne ñoom production intellectuelle daawa bi nuñ ko tanzime ba ba taxaw fa mm. suux fu baax a baax mm-hmm. surtout euh, li ñuy wax ci France nga xamee ne yaakaar naa ne ni fa l'islam di ni ñuy duggee ci l'islam ni ñuy ni ñuy ni ñuy mm-hmm. embrasser mm-hmm. l'islam daanaka gisoo daanaka chiffre réel yi dañ ne duñ ko waxuñ ko mas ay gëstu yu ma ci gëstu waaye ay dix huit millions la ñuy xalaat ak boo ko boolee ay ba ay vingt millions ci ay jullit. Hmm. waaw ndax eh, nit ñi waaw day dugg bu baax a baax a baax a baax. Hmm. ba ci tubaab yi weex tàll sax. ni mu fa yaatoo dafa bëri waaw kon yu mel noonu. Euh, te da xam ne Occident am nañ problème euh, Sëñ Tuba am na solution. Hmm. Euh, mar nañ ci wàllu ruu. ak ci xol. Sëñ Tuba indi na lu neex. ci lu baax ci ci ci ci ci njàngaleem. Mm-hmm. fexe ba mu àgg si ñoom loolu yàpp naa ne rôlu kër sëñ Tuubaa yooyu la. Mm-hmm. kon euh, bu fekkee ne nag dañ koo def yëfi sénégalais rek. wala di def suñuy ni ko Galaye Ndiaye dajaloo defi xew Galaye Galaye Ndiaye mu xorom ne defar suñuy mbaxal. <laughs> ak soos <laughs> waaw yooyu nag yaakaar naa ne te foofa yomb na fa. Ah, ay ay xéwlu moom yomb na fa loolu ah, daanaka. di gën a seet daal fi fi fi fi fi bi jëm di ko fa def yaakaar naa la da da dana tax jeexiti xidma gën a. gën a am solo gën a fës gën a am solo la. Hmm. jërëjëf sëñ bi day mel ne eh, day mel ne liñ doon liñ doon soxla ci waxtaan wi eh, li ci gën a ëpp eh, am nañ ko ci. Eh, day mel xam naa li ñu cërale woon ci waxtu mi ngi bëgg a mi ngi bëgg mi ngi bëgg a cate eh, xëy na eh, xatuk waxtu xatuk jataay bi feeñ na ci waxtaan wi ndax day mel ne tomb yi nga bëgg a développé yëpp sax ak ni nga ko bëgg yaatale yaatalee xëy na du xaj ci benn jotaay waaye tomb la boo xam ne moom dañ ciy dellu si di ci dellu siwaat ndax bu ñu defee synthèse waxtaan wi dëgg-dëgg alxidma mooy li Sëñ Tuubaa woote rek mm. ndax moom ba muy wax dafa wax ne ubaayiul yawma rasulil Moustapha bi xidmatin moom lim jaayanteeg yonte bi yëpp mooy di ko liggéeyal. est-ce que yaabudu kullillah rabbal alamin tamit lam ci mhm. mooy di liggéeyal yàlla kon moom. li mu liggéeyal yàlla ak na mi jaamoo yàlla lépp ci xidma la ko jaarale. kon li Sëñ Tuubaa di woote dëgg-dëgg ak li ñu doon defloo rek mooy mooy mooy xidma. Mhm. ni ko sëñ bi xamlee ci njëlbeen waxtaan wi itam mooy ëmbal ñëpp yërmande rek. Mhm. jaamu yàlla yëpp nga ëmbal leen yërmande. te yërmaane jooju nga leen di ëmbal moo la yóbbu ci nga leen di jariñ di te bañ leen a jariñoo mooy kon li tàqale diggante tubaab yi ñi mm-hmm. gëmul yàlla mm-hmm. ak ñi nga xamante ne ñoo gëm yàlla dëgg-dëgg mm-hmm. te mooy ñi ñu ñu ñu ñi tubaab doon doon woo ci woote bii nga xam ne ci la yeesalee lépp rek eh, te mooy eh, tubaab yi ñee li njitte woo mooy jariñoo nit ñi eh, suñ tubaab nag fi mu woo nit ñi mooy moom moo njëkk ci jariñ nit ñi ndax wax na ne yàlla daa def ci man saa nafin bilaa darari saa nafin bilaa darari fil barri fil barri wal baxri daa nafin bilaa darari wallahu yansuru nii wal xalqu tatboo nii fil barri wal baxri daa nafin bilaa darari njëriñ loolu nekkoon ci moom nag day mel ne moom la yenkeewal wala moom la eh, nampal ñi nga xamante ne ñoo topp ci moom mm-hmm. jàngal leen wan leen yoon woowa mm-hmm. mooy ñuy jariñ nit ñi te bañ leen a jariñoo loolu nag lu am solo ci déggin woo xamante ne mm-hmm. daanaka moo mooy mooy tënk waxtaan wi eh, ci pas-pas boobu nag mooy ci jariñ nit ñi te bañ leena jariñoo lépp lu murit gi réaliser rek bu ñu dégloo waxtaan dëgg de ci loolu rek lañ ko lañ ko amal mooy fexe ba lépp lu ñu def mu amal nit ñi njariñ loolu nag mën nañ koo séntu fu bëree bëri mhm. la ci jiitu mooy ay réalisation lu mel ne jumaa ji lu mel ne Touba mhm. lu mel ne gox goxaan yi nga xamante ne murit yi taxawal nañ ko fépp ci biir Sénégal nga xam loolu moo yaatal réew mi mhm. ubbi ko bàyyi ko muy nooyi nit ñi di fa mën a dem ñu fay gas ay teen di fa ay daara di bay ay tool te lépp di jariñ ñi nga xamante ne mooy mooy mooy mooy nit ñi nga xamante ne ñoo fay nekk te ña koy fay def duñ ca séentu uh, li nga xam ne moom la wala fiy wax njariñ loo fekkee nga xam mm-hmm. duñ jublu ñoom mu nekk seen njariñ luy dellu ci ñoom mm-hmm. waaye fayu yàlla mi leen bind rek moom lañ ci sàkk ci biir jaam ñi nga xamante ne ñoom ñoom la amal loolu day mel feeñ na ci Eh, niñ doon jàngalee nit ñi niñ leen yare feeñ ci wàllu économie ci wàllu ci wàllu ci wàllu euh, koom mhm. feeñ na itam ci wàllu social mhm. nga ñëw ci ci leeral ci daayira yi seen taxawaay mu mel ne daayira bu nekk dafa am spécialité mhm. eh, ñii di yëngu ci wàllum santé ñii di yëngu ci wàllum xam-xam ak yaatal ko lu mel ne Rawdu Rayaahiin ak ak yeneen eh, structure yu mel noonu boo demee Maroc da nga fekk daayira boo xam ne li mu li mu taxaw lépp ak li mu jubluwaayam mooy gën a yaatal mhm. ci wàllu ci wàllu ci wàllu bind ak mhm. yaatal am bind mhm. te loolu yëpp ña ngi koy def ci eh, xi ci ci ci turu xidma mooy liggéeyal liggéeyal xeet wi liggéeyal askan wi fexe ba fexe fexe fexe fexe ba ba jariñ leen day mel ne loolu yëpp ay ay majaal la wala ay domaine la ay anam la ay wàll la yoo xam ne yëpp mën nañ koo jàngate ci biir xidma nga xam kenn ku nekk lu man rek mën na caa mën na caa xidmaa ca loolu défi yi nga xamante ne itam ñëw nga ci ci tontu bii mooy lépp loo xamante ne mën naa yàq mën naa yàq xidma bi mooy ñàkk koo organiser ñàkk a déggoo ak di dajaloo di def loo xamante ne dëgg-dëgg ñaari nit mën nañ ko def fukki nit nekk fa te ñooña mënoon a dem feneen wala ñu man leneen hmm. ñëw di def li lu mel ne ñu nga xamante ne maanaam ñoom waruñoo ñëw di waxtaan wala ñuy diglu aw waxtaan waaye dañoo war dem seggi kafe bi <laughs> ñooñu ñooñ bu ñëwee toog diglu waxtaan bi rek ñi ngi ñi ngi gàllankoor liggéey bi loolu ci defi la ba kenn ku nekk xam wàll ba ma mu jàpp ne foofa la war a jàpp ngir liggéey bi sotti loolu itam ci ca ca ca ca liggéey ba liggéey bu am solo la euh, mu mel ne sëñ bi daa mel ne mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi laaj euh, ab laaj mu ne fi dilli ma yantasiru fi l aalam min afkaar tatarruf fa hal min xallin yumkinu an tuqaddimahu an tuqaddimahu l xidma fi hada al majal waaw bien sûr kay mooy xidma modèle la xam nga dafa mel ne tatarruf moom mooy ko amul réponse rek mm-hmm. silaahul aajis mm-hmm. waaw intellectuellement mënoo ko répondre ah économiquement mënoo ko répondre lii ko répondre nga inxilaax explosé sa bopp wala dara mm-hmm. jàppal yi ñi nekk waaw waaw sëñ Tuubaa moom bakasaagi mm, mm, jaana ko umatan wasata indil nañu solution ma zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan nabiyil Mustafa tajtahidu lu ne jéem leen ko solutionné. ci mm-hmm. ijtihaad ak tajdid mm-hmm. waaw mais yenn saa nee na amut yàlla wàcciwut tawat euh, te indiwut saafaraam. Mm-hmm. mais. Euh, dëgg la waaw de de de de rechercher et <laughs> de trouver la solution. ñoo ko war a jéem léegi bu defee. Euh, Sëñ Tuubaa indil nañu modèle tamit ci euh, xidma modèle la. Mhm. modèle la. Mhm. yoo xam ne mën nañ cee saafara yëpp saafara lépp. waaw amul lu mu mën mooy lu jëlal sa alal sa bopp sa xel sa lépp jox yàlla. Mhm. fu ñu ko soxlaa joxe ko fa. da da question bu ñëw da nga ci am réponse bu soobee yàlla. ndax nit moom. ku ni nga waxeeti man man nu ko waxeeti man man ma ci nax ju njëlbeen waaw man xaaral ba wala je wala waaw wala <laughs> loo sax loo sax muy bil hmm. kon hmm. Eh, jàpp naa ne tatarruuf eh, dëgg dëgg di rey nit ñi di indi expo. tatarruuf waaw bokk sax xam naa ne mais nag mooy indi irhab. waaw moo lii. ab bunt la. ab ab ab la waaye fee ñaare lay lay mujjee. lay fee waaw fee lay mujjee. Hmm. waaw lii ku ku ku ku société bi defi. Hmm. amoo réponse nga inxilaaq. Hmm. Euh, mujj mu indil la ci comportement yu jëmut noonu. mooy indi leneen ba mujj àgg ci euh, terrorisme. waaw kon jàpp naa fi ñu sëñ Tuubaa indil daal tasrifu taqaatan ci mooy fu koo mën a exprimer sa bopp foo mën a wane li ne ci yow foo ko mën a jaarale ci jëriñ mbindeef yi au lieu nga koy def ci lor mbindeef yi lor te loolu mooy ñaari beneen bi tamit tataru waaw waaw tata muqaabala bi rek waaw mooy mooy mooy medd fa ak ak ak man man fa waaw ak man fa loolu rek lay lay lay tekkiwaat booy booy xool euh, ñaari ba ñun jullit yi neen modèle suñ tubaab bi ak yeneen modèle yoo xamee ne am na ci lislaam mhm. mooy buy yi ñoo xam ne euh, day jàppe ne moom moom rek muy mucc al firqa naajiya keneen moom mhm. yaakaar naa tamit loolu du euh, du du gis-gisu suñ tubaab mhm. moom moom ñëpp naajiya ñëpp dañoo war a ñëpp dañoo war a mucc ñëpp dañoo war waaw moo tax boo xoolee ci biir woote bi sax. da ngay gis maanaam. kullal bilaadi inni inni unaadi kullal ibaadi. kullal bilaadi <laughs> waaw. mooy kenn wut mooy. <laughs> Eh. Eh, nu ko waxeeti. Eh, ilaa ah, imaadi bilaa jala waaw am na fu mu ko waxaat ne. <laughs> lakaru juhi maa jumohi bi xëyri juhi wala xataay. moom bëgguma ku dugg sawara. waaw sawara moom nañ ko tëj moom. ku nara dugg àjjana nañ nañ. fuñ mën a jaaree baax na. waaw nañ baal ñëpp yóbbu àjjana rek. dañuy gis mel ne ci domaine yi nga doon wax rek. mooy ni mu ubbee nga xam ne ja bàyyi bàyyiwun ñoo xamante ne dañu ne ca jàkka ja rek yori kur di tocc tocc ñooñu rek mën a egg ci yàlla mm-hmm. waaye mënees naa liggéeyal yàlla ci jaam ñi ba egg yàlla ba egg ci yàlla na ngay boole eh, jaamu yàlla ak liggéey nga xam ne day mel loolu mooy dëgg-dëgg li moo yaatal googu noonu xam nga day mel loolu solo eh, alladina yuqimuuna na ko xeete eh, alif laam saak alif na dal mutaxin alladina yuqimuuna wa yuqimuuna saat wa mimma razaqnaahum yunfiquun ñaari alaaka yooyu alaaka bii ak alaaka bii suñ ci baa da ko senti fexe na ba ci ci xidma eh, da wut yàlla ci mbindee ah, <laughs> mooy bi ngay julli doon wut yàlla hmm. eh, wut yàlla rek ci yàlla waaye wutal yàlla tey ci mbindee fi mooy eh, en même temps ñaar yi nga defandoo ko hmm. loolu loolu mooy mooy mooy mooy mooy hmm. sirlu Sëñ Tuubaa ah. te yéen saa salaam defe ne wa juxilal ardu masjidan wa taxuura yeneen diine yëpp dañoo tënk yàlla ci espace ak ci makkaan ne ne fii rek ngay gisee yàlla. yonent bi ne eh, déedéet man rahmatan lil alamin yàllaa ngi fépp. waaw suñ ci bàyyee nag bu comme fuñ yàlla it du ko tënkaat ci jàkka ji. Mm. damay fexe nga gis fépp yàlla. nga am fépp yàlla. waaw loolu nag mooy fexe ba euh, taqdis euh, mooy euh, au lieu que ñuy almanatul xayaat. Mm. ñu ñu taqdis ko ñu def ko. Mm. moo ba. Euh, lépp di symboliser yàlla. Hmm. lépp di la delloo ci yàlla. Hmm. yooyu suñ ci bi sax da koo da koo nañ koy waxeeti yàlla yàlla yàlla lisé. waaw ah. <laughs> daa yàllaal <laughs> jamono da ngaa yàllaal daal. da li ko wër. Ah. day fexe ba mu yàllaal. Ah. da ko da ko da ko fexe ba lépp waaw naq hmm. seeyal dañ ne euh, dooñu suukar. boo sànni ko ci biir ndox mi rek. Hmm. bu yàggee moom dootoo ko mën a taqale. waaw day ah, seey bi xam naa buñ ko toppee nii dinañ <laughs> fi fanaan ci waxtaan wi te xam naa ne li ñu cërle woon ci waxtu jeex na bu yàgg ñi nga xam ne ñooy topp waxtaan wi itam yàgg naa doyaluñ waaye allah allahu taala suba danañ dellusiwaat ci yeneen jetaay ni ma ko waxee woon ci njëlbeenu waxtaan wi bu soobee yàlla àndaat ak yeneen ci yéen ci beneen tomb bu. Uh, juróom-ñeenti waxtu wu tegal fanweeri simili jotee ci guddi gi incha allah danañ ànd ak yéen ci beneen jataay boo xam danañ ci waxtaane xasida ak uh, wala xadd karam naa ba nii aadama day mel ne foofu itam beneen mbir la moo xam itam daanaka dana jokkaloo lool ak waxtaan wi ca ca yàlla teral gim teral nit ñi waaye itam ci xasida googu buñ ko jàngatee ànd ceeg almudir sëriñ Ahmadou Samb mm. danañ ci gën a mën a jariñu bu baax baax xam naa ñu yëkkati bi ndax guddi na uh, di ñaan yàlla suñu wa mu fekkeloo ñu suuba ak jàmm incha allah te fekkeloo ñu màggal gi te ñu weesu ko màggal yeneen màggal ci bak sëñ kon sëñ sëñ sëñ Abou Chouaib bi waa eh, daayira Muxaddamatul Xidma ci sama kàddu ñu ngi lay sant di la gërëm ci jàppandal gi nga jàppandal sa bopp ci liggéey bi ndax day mel ne bàyyi woo ay yitte ñëw ci yitte yi waaye lii dey sa yitte ñu woo la ca biir nga ne ca di ca di ca di ca bay kon nag saa la soxlaa itam ci biir liggéey bi noonu nga koy àndee ak ñun moo xam ci sa wàllu xalaat moo xam ci sa wàllu ci sa wàllu jëf ci ci wàllu gépp rek mm-hmm. ni ngi ciy jàppalante ak ñoom euh, te yëg ne kenn nga ci biir liggéey boobu loolu amee nañ la ci ak cant bu baax a baax ñu ngi la ci sant bu baax di la ci gërëm di ñaan yàlla suñu borom liggéey bi ngay liggéeyal euh, sa maam Sëñ Tuubaa ci ci ci ci ci ci ci ci ci xam-xam ak tasaare ko euh, yàlla na ko yàlla na ko nangu te yàlla gën laa dëbbu kàttan gën a yaatal xel mi defal la tawfeex muccal la ci lépp rek luy lore ak yëpp gàllankoor ci barke Sëriñ Tuubaa te boo nañu ko defal ñun ñëpp in uriidu illal islaaha mastata'tu illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniibu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu سيد الرجل والسفر